bi Sénégal doon ñaari dëkk yi dugalante ci lu bari ba tax na doomi Sénégal yi fiy yeewoo bari fi lool di daani seeni doole ñenn ñi sax dem nañu ba am fi njaboot ressortissant yi réewu Sénégal di seede nii seeni nekkin ak Gambien yi rafet na loolu ndax am nañ fi jàmm. fii eh, maa fi war def ay 25 years ah, ay 25 ans man driver laa dee liggéey chauffeur fii de liggéey bi fii moom ay faraatu la rek tey mu neex ëllëg mu naxari waaw ñuy gooto gooto rek ak njaboot gi tey nga am dépasse ëllëg doo am dépasse waaw tey jii may wax yow nii sax oto bii ma amee nii sax suma benn rakk moo ma ko dégg waaye amewu ma oto suma oto bopp noonu waaw dañ may dee siiru rek may liggéey su ngoon jotee ma xoraatu suma wërsëg yobu kër dundal suma njaboot ci loolu laa nekk time bii nii fii jàmm rek nañ fi am billaahi boo xool sax day day mel ne comme ni jàmm ji nañ fi sax amuñu ko Sénégal boo xool ñun amuñu fi benn problème billaahi non stress nañ fiy dund baa boog man jàmm rek nañ fi dee dund ñun sénégalais yëpp billaahi suñu fekkee Gambie yi sax da ngay foog ne comme ñun am nañu ñu bari sax danoo foog ne man comme Gambie la billaahi parce que jàmm rek laa dee dund fi su guddi jotee fii ay Gambie kese ñoo fi dee toog ak ay benn benn sénégalais ñëw jënd kafe xam nga man a gaay daa famille lan léegi man nag bi ma jàngee ba pare daara rek laa ñëw fii waaw sama mag laa fekk si woon léegi sama mag boobu léegi tukki na bàyyi ma fi xam nga man tam fii laa miin Sénégal jàng rek laa fa def musuma faa dem musuma faa liggéey benn liggéey afta ma jógee foofu ñëw fi fekk fi sama mag sama mag dem bàyyi ma fi ma continuer waaye jaamu rek laa fi gis nag nit de am jaamu foofu nga dëkk te fii am naa fi jaamu waaw man séentooguma lool de waaye lii xew ëllëg na yàlla moo xam de waaye séentooguma lool nag waaye maa ngi sant yàlla bu baax nag waaw dama dox day dox bu baax baax sax bu baax a baax sax dama foog ne sax comme gaa mi ni ko dee naane Sénégal naane wuñ ko noonu waaye dañ ko nangu suñu loxo carrément léegi Gambie ko dee uba naan sax billaahi suba ngoon man maa ngi samp fii dama doon wër de dafa mujj a ma del taxaw fii man ci kër gi laa rëkk ah nañ ñu may ñu jàmm may ñu salaam ñoom tamit ñu nekk nit ñu baax ci jigéen ñi tamit am yërmande mën a jënd mën a soutenir nit tamit ndax boo xoolee doo ko démarré bi demee wutoon nii grâce à ñoom daal noonu laa la ko mën a waxee ñoom daal laa mën a sant ñoom laa mën a gërëm doomu Sénégalais moom xam nga dafa nangoo liggéey te tamit fu mu yaakaar ne mën na fa am dara rek il faut que mu prouver pour mu dem fa jéem a am dara léegi ñu ñëw Gàmbi nag bi ñu ñëwee ba Gàmbi gis nañ Gàmbien nii nit ñu taxawoo yàlla def ñu ñëw fii di débrouiller di débrouiller ba yàlla tey macha allah mu may ñu makkaan bu mel nii di ci sant yàlla bu baax a baax na waaw looloo ñu indi woon xam nga daanaka Sénégal tamit jàmbaar lañ waaye tamit ñii tamit jàmbaar lañ tamit mais. daanaka kenn ku ne fa nga nekk ngay gën a miné quoi presque Sénégal def naa fa business waaye yàggut Gambie daal laa gën a defee fort de business. ñun jàmm rek lañ fi nekkee quoi ndax presque dëkk boo fa nekkee bu fa nekk ci jàmm dangay dox ci norme dëkk bi buñ tegee droit yi yow nga xam ne liggéey moom la fa indi da ngay dox ci droit yi man boog je je man maa ngi ci jàmm man moom te maa ngi dund jàmm tamit ci dëkk bi. liggéey moom boo koy def moo la man a yóbbu fu nekk. waaw surtout ay rawatina si li ñuy liggéey muy wàllum bisu jeewar yi xam nga so boo si nekkee xamal ne mën nga nekk réew mu nekk di fa def sa di fa daan sa doole ci so ñun suñu business fii lañ fii lañ starté business bi man fii mooy first time fii mooy première fois bu ma bu ma ñëwee fii nii di fi liggéey bisu waaw so loolu moo tax lii moo nekk suñu liggéey daal den xame yàlla rek moom moo dee defee nit ak liggéeyam fu mu nekk fu mu ko dee defee à chaque fois fii moom am amuñu fi benn jafe-jafe à chaque fois so ñoo ngi ñoo ngi si jaam salaam so ñun fi fekk si tamit waaw ay nitu jaamu lañ so musuñu fee am problème so luñ jaay bagage buñ indi dañ ko dee su ñëwee fii dañ ko fi dee fekka so dañ dee am ñun jaamu sometimes sax waaw xam nga fii ñun ay comme ni ma la ko waxee woon rek fële ne ñun ay doxandeem lañ fi mais su ñëwee su dara xewee da gis sax ñu ñëw indil ñu lekk indil ñu dara comme lu su demee ne ay bisu eet tabaski wala ay korité genre yooyu noonu daal waaw en tout cas fii li ma leen di wax daal mooy macha allah ay ji nit ñu baax fi nekk eh, te loolu leen dee dund ak ñoom tamit ñu ngi sant yàlla bu baax parce que parce que fii fii nii ñun suñu bagage Sénégal la ñuy dem ñu fekk ko foofu noonu Sénégal la ñuy dañuy dem ba Dakar xool foofu ay bisu xool lu nice ñu ñëw indil leen ko fii te buñ leen ko tegalee fii dañ koy apprécier bu baax a baax dañ ciy kontaan comprendre nga so loolu moo tax daal. waaw barke Sëñ Saliou nag moom mënu maa toogal sama mbokki Gambie Sénégalais rek lay toogal nag ñoom lay toogal ñoom lay kafal ñoom lay waxtaanal ba guddi time mi tëdd a jot ma dem tëddi ay waata gars yi to be honest ñoom rek laa miin miinuma benn Gambien nag dama loon ànd ak time boo i pako waaye léegi dama stop yëpp i Baye Fall la i Baye Fall lay toogal Baye Fall yu baax ñu ma conseil lu baax tamit waaw ah, dama déggoon boppa trop waaye ma dooree toog ak gars dama sant yàlla bu bëri dama gis wéccoo yu bari wéccoo ko suma boppa trop vrai Gambie moom dëkk jaama la Sénégal a Gambie noo bokk ndeya baay Macky Sall bu ko nee fanaan fii Adama Barrow bu ko nee fanaan Sénégal loolu dañ ko war dañ ko gën a rafetlu rek barke sëñ Saliou parce dañoo baax rek noo ma woon seen rek sénégalais dañoo baax ñoom la lay toogal fii du ma tooga benn Gambien du ma tooga Pël du ma tooga kenn sénégalais yi rek lay toogal moom lay waxtaanal billaay dañoo baax rek ñoo ma ko woon man tam bu jotee bu ma àndee foofu dem Sénégal dafa mel ni foofu laa dika billaay billaay walaay te Touba rek lay dem nag waaw moom rek lay dem nag waaw dégg nga Sénégal dafa ne spécial seen télé bi leeral daa baax trop télé bu gën a baax senegal leeral leeral TV moom maa léegi nii maa moom laa doon seetaan dégg nga da nga leen si tegoon i grand théâtre bi xamuma waaw télé bu baax la télé bi yàlla na gudd a fan yéen ñi muy liggéey barkeel suuf si gën a gudd fan am i poste poste ba ngeen seen bopp am télé seen télé bopp ñeen muy liggéey leeral bilaay kontaan naa trop loolu la ñëwee Gambia te Gambia Sénégal noo bokkan daya bàyyi mu nee mu naxari donte am nañ fi jàmm ñàkkul ñi faral di am ay jafe-jafe ci seen i wàllum liggéey fii ci Gambie bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu amuñu fu ñuy jooyee seen i nakaar ndax ambassade bi taxawul leen benn yoon. li nga xam ne moom la ñu gën a am métti ci dëkk bi ak problème yi nga xam ne moom la ñuy jàkkoonteel ci dëkk bi bokk na ci problème yi nga xam ne moom la ñuy jàkkoonteel ci dëkk bi mooy luyaas boo xam ne dafa seer police yi dañuy ñëw fekk la ci marché bi jaay la doole ñu ne dañuy tere mbuus nga jaay mbuus tey comme ni fi xew tey jii ni tey ci journée tey bii rek li fi xew ñu ñëw dañuy ñëw rek fekk nga yor mbuus ñu jàpp daal lay yóbbu te defuñu communiqué boo xam ne day tere mbuus defuñu si dara tey dëkk bi dafa metti police yi dañuy ñëw dañ lay wan carrément ne yow sénégalais nga dañ lay jaay doole am na loo xam ne dafoo jërul ndax ñun sénégal lañ jógee ñëw fii daan suñ doole liggéey moo ñu tax a jóg te liggéey moo ñu ñor fu ne fu ne mën nañ faa toog pour liggéey mais dañoo xam ne da diggante Sénégal ak Gambie amul xaajaloo dañoo ñëw fii nii pour daan suñu doole ñëwuñu fii pour jaayante doole ñëwuñu fii pour defante dara dañoo ñëw ngir liggéey ngir ñibbi dem teral suñu ay waajur ñu bëri tey ñu ngi liggéey fii nii di fi daan seen doole amuñu fi li gën si ñoom dañoo ñëw fii di muñ di nekk ci loo xam ne ànd ak muñ rek lañ fi nekkee ci dëkk bi mais wallahi azim liñ fiy dund dafa metti liñ fiy dund dafa tar dafa metti dañuy ñëw fekk la jaay doole yóbbu la paag la fay loolu lu seer nga wax ñu ne la sa waay dëkkoo fi yenn saa yi danaa la doomu doo yow doomu sénégalais nga am na baal yoo xam ne dafa ñaaw am na yoo xam ne waroo ko di wax di topp di ko wax yéen sénégalais ngeen wala lool noonu loolu du baax du wax sànni sa doit pas dire boo jógee Sénégal nga ñëw nga fayal ko douane comprendre nga bëgg a fay sa paas li nga investir si yoon bi ak li ngay investir si boo nekkee si biir Dakar nga xam ne si ne soo sa everything lépp lañ la koy defal amul leen loo xam ne si ne so yow yaa koy yow nit ñi ñoo la koy defal yaa koy defal sa bopp comprendre nga so boo ñëwee fii faa mu different parce que sometimes si CFA bi ak dalasi bi dañ xaw a dañ xaw a wuute dañ different su boo dee jënd bagage yenn saa yi nga tey mën nga dem nga am lu yomb nga indi ko fii mu yomb nga demaat nga ñëwaat indi ko fii seer loolu yëpp daf dee dépend si CFA bi ni mu dee yéegee ni mu dee wàccee parce que CFA bi su seeree fii nii soo wecc koo dalasi bi nga xam ne CFA bi moo ëpp doole dalasi bi comprendre nga soo daf dee difficult trop si ñun daf dee metti trop si ñun waaw dañ dee sometime bagage bi daf dee seer yenn saa yi nga ñëw mu yomb. léegi am léegi comme gars yi dañ dee am moto boo xam ne si ne boo jëndee ba pare ngay dem foofu noonu nga dugal fa sa bagage den ñoom gars yi ñoo laa charge price den da joxe sa xaalis rek wala soo ñëwee saa ngay soog a fay léegi loolu moom boobu moom bi mu amee ba léegi moom waa jaamu am nañ ko am mais bu njëkk bi nga daan indi sa bagage daan ànd ak moom. soo boo ñëwee douane dañ lay sonal parce que faaw ñu vérifier li nekk si biir bagage bi ak ban genre bagage nga amee xam yooyu tamit daf day nekk problème bu baax a baax. jafe-jafe bi daal dafa doon ne moom jafe-jafe bi daal muy danga li ñuy moom mu yeboo mën a def la dund gu mooy dund gu métti gi rek bagage yu seer yi waaw yi moom lépp a seer time bi time bi li moom dara yombul loolu lijjanti bu ngoon jotee boo ko joxee dépasse. bu subaa nga xëy jiwaat waaw loolu moo fa nekk am am bi daal doyul waaw dañuy foraatu rek soo génnee uuti léeg-léeg di nga yàgg ci place dem fa am fa ay njaboot pour nga wuññeekuwaat du yomb ndax tey jii su ma la waxee maanaam maa ngi fi ak ñaari jabar maa fi am ay doom yu góor ak yu jigéen kenn ki dem na sëy ku góor ki am na jabar ñeneen ñi tamit ñu ngi tray ay mag leen daanaka kon xam nga fi mu toll moo woon du yomb il faut rek ma toog ak ñoom di naxante ñoom waaw ah, pour nguuru Sénégal moom xanaa leen loxo rek mun la mën a jàppale dimbale la ndax ah, ñu jàppale la bu nekkee mënul laa dimbale tamit nga nekkoon si li nga nekk rek di foraatu ndànk-ndànk rek waaw loolu moo fa nekk rek xam nga góor moom bu fekkee ne yow liggéeyuloo nguur da ngay liggéey di ñàq daan sa doole ah su boobaa boobu moom su nekkee ne nguur fekk na la fa jàppale la lu baax la bu fekkee tamit ma du laa jàppale tamit ah nga nekk ci li nga nekk rek di góorgóorlu ndànk-ndànk rek di dundal sa njaboot ba heure bu yàlla defee xéwal rek mu ñëw. fii moom daan ko jafe-jafe ñu ngi dund bëri na bëriwut euh, surtout ñun ñi nga xam ne ñoo fi Sénégal yi du fi nekk euh, ñu ngi dund li nga xam ne tamit euh, wàllum location yi. Euh, seer na fi ak li nga xam ne tamit amuñu ko amuñu li nga xam ne mooy ku ñu jàppale ndax fii métti na métti métti na métti goo xamante ni euh, daal doy na waar waaw foo ko natt weesu na ko CFA bi seer na tey amul yemukaay tey da ngay ñëw mu yomb suba nga ñëw mu seer ginnaaw suba mu ñëw yokk ko même bagage yi ba si marchandise yi loolu yëpp tamit nekk na yoo xam ne tamit gars yi ñoo ngi koy jooy euh, Sénégal yi tamit ñoo ngi si ñoo ngi fi jàng ñoo ngi fi jànganteeg ay ay ay jafe yoo xam ne tamit mën naa ne mënu du nga ko mën a nettali waaye ndax euh, ñoom ñëpp ñu ngi nii waaw dañ fay ñëw pour dóor seen waar pour liggéey yóbbu seen waajur mais tey te tey loolu mayuñ leen ko fi te ñun moom daanaka suñu ambassade bi mi ngi fi mais suñu ambassade bi yéegul sax lu Sénégal yi nekk fii di dund ba tax na daal ñun ñoo ngi koy jooy ñoo ngi koy jooy bu baax a baax a baax pour suñ ambassade bu nekk fii ndax ñun ñoo fi nekk ñoo fi nekkal président de la république kon ñun daal li ñu ñaan rek mooy suñu ambassade bi li ñu ñaan rek mooy suñu ambassade bi jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax baax ba nga xamante ni euh, tey jii lépp loo xam ne métti nañu ñun ñun ñun sénégalais yi ñu ñu daal koy fu ñu koy jooyee dañuy am dañuy am lu ñuy naqari lool duñ am fu ñu koy nekku si tere nekku si rajo ndax li ngeen def yéen waa leeral euh, dèjà dañ leen siy sant di leen gërëm ndax buñ amee lii ñun dañuy sant dañuy sant bu baax a baax a baax di ngeen di jóge fii ba Sénégal ñëw ngir lan ngir xool seen seen seen seen i doomi réew su lu nekk kon loolu tamit dañ leen si sant bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanalaat tawfeex bu baax a baax a baax yéen a ji ngeen am tamit ngeen mottali ko bu baax a baax euh, beneen kii bi tamit maanaam mooy wàllum jaay doole bi ndax euh, dañoo gis ne euh, fii ñu nekk di daan doole saatuñu fenuñu tuxuñu defuñu lu bon dañoo ñëw ngir wut si rek tere waajur te gis nañ tamit jaay doole bu ñu jaay doole da ngay ñëw tey nga indi sa bagage a ah, doo doo xam sax lu xew ñu jekk ñu jekk ñëw rek jël sa bagage yi tëj la te loolu nekkul yoon soo waxee ñu ne la dëkk jàmm nga nekk man mi doo wax ak yow jàppante naa fi ba tàyyi ak i police keneen ak keneen noonu waaye te loolu mënoo si dara ñu bëri fu mu doon yi sax danoo daw ndax lan mënutuñoo muñ waaw ndax ñoom si boppam li ñuy dund moom metti jamono ji looloo moo tax daal fu mu toll nii ñoo ngi koy ñaan président de la république pour mu xam naqar bu sénégalais yi di dund fii fii si Gàmbi nit ñi ñu ngi naan Gàmbi dafa neex wallahi xasim Gàmbi neexul tant que ñëwoo fi ba xam ba xam lu gàmm yi lu Sénégal yi di dund gàmm yi gàmm yi neexul damay faral di wax ne dan naan senegal ak gàmm benn bopp la mais loolu Sénégal ko dundal mais du beneen dëkk moo ko dundal fii si fii si réewum Afrique Sénégal rek da ngay jóge beneen dëkk ñëw si Sénégal ñu téye la comme seen doom mais Sénégal ngay jógee dem si beneen dëkk ñu def la jàmm bu la xamee ne Sénégal ñu yàq la lu mel ne xamee te doo sañ a wax boo waxee ñu la dëkk jàmm nga nekk at chaque at chaque at waaw chaque at chaque at gars yi dañuy dagg dañuy dagg li nga xam ne moom mooy alliance boobu su boppam moo lay firndeel ne yow mi non sénégalais nga mais da ngay am carte bi mais du tee mais du tee su boppam duñ la may jàmm waaw lempo day jot boo daggul lempo ñu jàppale yóbbu la da ngay dank lempo sax kenn du la may nga liggéey loolu tamit ñoo ngi koy jooy bu baax a baax a baax a baax fii si fii si fii si diwaanu Gambia